Euh, salaamaaleykum euh, ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di commencé ci sant yàlla sant yàlla bu baax parce que bu fekkee je pense que ci wàllu àtte comme ni ko avocat yi waxee bii mooy ñaareelu yoon ñuy àtte sama diggante ak Ousmane Sonko.

duñ fa àttee ci ndax indi na rapport wala indiwul rapport wala ndax li mu wax dëgg la wala li mu wax du dëgg donc ñu sant yàlla bu baax ci résultat bi ndax day firndeel suñu waxu démb suñu waxi bërki démb ak suñu waxi tey ci suba ñu ci bari ñu ngi doon laaj lu tax mu yóbbu ko tribunal ñu ci bari ñu doon laaj lu tax mu def appel dafa di moom muy utal boppam man dama koy utal sama bopp moom li muy ressentir man dama koy ressentir ma gëm ni ko doomu aadama la donte bokkuñu bëgg-bëgg donte bokkuñu jëmukaay donc ànduñu mais dama jàpp ni bu ñuy xeex nañ xeex ci dëgg bu ñuy xeex nañ xeex ci njub bu ñuy xeex nañ xeex ci worma dégg naa ni moom waxu ko mais ñi ànd ak moom dañ koy wax mooy yi daf ñuy attaqué dama koy firndewaat tey fii nii man luma wax ci nit giñ na ci yalla ni ko buñ ma wowe ma indi firnde bi ak lu wax ci dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër luma wax ci nit mukk lo xamne aw mu firnde bi man nga d'accord nak ndax war nañ ko wax wala waruñu ko wax mais man duma jiñ sama moroomu doomu adama donc lepp luma ma wax ci mom amna fu ko lépp lu ma mas a wax ci moom am na tënk bu ma téye mais moom daf ma tuumaal ni moom ci boppam yor na rapport boo xam ni daf ma épinglé bu IGE mu dem police dëggal ko lu mel nii mas na maa dal ak njiitu politique boo xam ni mu nekkoon ni moom ci boppam yor na rapport boo xam ni daf ma épinglé bu IGE mu dem police dëggal ko lu mel nii mas na maa dal ak njiitu politique boo xam ni mu nekkoon pratiquement oppos opposant bi gën a mag ci ñun muy le président Idrissa Seck mu wax

parce que nangu naa nag man maay politique nangu naa ni man maa jiitu nangu naa ni man maa bokk ci benn équipe nangu naa ni man maay jouer benn rôle ci équipe équipe bi doon majorité présidentielle may xëy di wax ci samay moroomu politicien mais di sàmm li may wax mu ànd ak worma ba pare doon dëgg donc bu keneen waxee ci man nangu ni dafa juum sama yar ak sama ngëm-ngëm ak ñi ma àndal nangu nañ ne bu nit ki juumee wax ni dafa juum da dellu gannaaw mais ñëpp seede ngeen ci ni ba mu ko waxee nanguwul sax assumer publiquement ni dafa juum ci rapport bi muy wax parce que police la waxee ni dafa juum ci rapport IGE ak IGF e. déggu leen ko benn yoon mu toog ci point de presse bi damaa juumoon ca pourtant ba ma accusé ak ba ñuy dem tribunal def na ci juróom-ñetti point de presse yoo xam ni waxu bëgg ndig rek la ciy wax non dañ maa bëgg faagaagal dañ maa bëgg defal lim seq ak man day xewewul ci néeg xewewul feneen lim seq ak man ci mbedd mi la yéen ñi ñëpp ngeen doon ci seede moom moo ko waxal boppam moom moo ni am na rapport moom moo ni téye na rapport moom moo ni ñun li ñu jaaxal dootul ndax rapport yu mu téye dootul euh, yan kayit la yor mais kan moo ko koy jox ku mel noonu nag bu la juumalee nga am njaboot am jabar am soxna am ay waajur am ay rakk am ñooy àndal am foo bokk ah man de jàpp naa ni loolu waroon na tax mu utiliser procédure de droit am ci réew mi yëpp loolu moo tax tenho de mon fils. Muy première instance, muy deuxième instance. de sax sac de de preuve. Ousmane Sonko déposé wul sax kayit est wane ni que moo wax loolu. Loolu di jéem a kokkali, di jéem a wax, ñii dañuy politique, ñii dañuy ko def lii, de dañuy def lii. Lii ma fi wax de nii lan moo politique. Li ma koy toppee moom moo ko wax ci coobareem. tey ñu ngi sant yàlla bi ñu tribunal joxe dëkk tey ñu ngi sant yàlla bi police defee réquisition ci ñaari ci corps de contrôle boobu di IGE ak service boobu di IGE tey ñu ngi sant yàlla bi suñu mbokk sénégalais yi xamee ni IGF sax bu defoon rapport ci Prodac man mënumaa jàpp parce que tey leer na ci bopp ñëpp ni que man mësuma nekk directeur Prodac leer na ci bopp ñëpp ni que mus IGF bu doon def enquête sax mënta jàpp ministre leer na ci bopp ñëpp ni que xaalis boobu mënuma cee jote mënuma cee eggi mënuma cee laal ba di ko jël demb nag bi muy wax dégg naa mu ni dafa am njaboot dañu torturer njabootam mais moom na xam ne ni que torturer na sama njaboot moom na xam ni que dama am ay doom jàngi école moom na xam ne ni baatam fa mu egg ci àdduna bi baatu journaliste yi ci njëkk condamné sax eggu ci donc na xam ni tooñ na ma ba ci kanamu yàlla tooñ na ma ba ci kanamu yàlla may sant nag sama njaboot di nga commencé ci sama soxna samay wayjur ak samay doom yi nga xam ni dañuy dugg ci internet bi di liir di xool ne dañu am njaboot dañoo am ay doom yu mag yuy jàngi école fii ci di dugg kaar di ànd vague di dem di dem di dem ci seen kër maam di dem seen i kër nijaay di dem ci géej gi di ànd ak leneen ñu xam ni ko samay doom lañ moom mu taxaw ni ko am na firnde bu wane ni man damaa sàcc moom mi ngi xalaat njabootam waaye xalaatul suñu njaboot